de ñëw euh, non non bye on a un message à, envoyer euh, nous sommes ici pour défendre les couleurs du parti mais aussi l'injustice que notre leader Ousmane Sonko est en train de vivre depuis trois ans, ainsi que les responsables de PASTEF. nous sommes, nous sommes conscients de l'injustice que les Sénégalais subissent depuis l'arrivée de Macky Sall à la tête du pouvoir, à savoir emprisonnement, torture, mort d'homme sans enquête. À cela s'ajoute la vie difficile que mènent les gorgolous, cherté de la vie, manque d'emploi pour ne citer que cela. Nous, les Sénégalais de la diaspora, on a une lourde tâche à accomplir pour sauver le Sénégal. Mais si le combat qu'on a mené à l'international a pesé sur la balance que Macky Sall recule le projet à la troisième candidature, à l'heure actuelle, il faut que nous, les Sénégalais de la diaspora, engagent un autre combat d'action, de stratégie pour finir avec le régime en place. Sur ce, il faut qu'on dresse un plan, de communication qui consiste à valoriser le programme de PASTEF en utilisant les réseaux sociaux comme support. Trouver un finance pour battre campagne. Faire naître, une, faire naître une fédération des Sénégalais de la diaspora qui regroupe Italie, France, États-Unis, Canada, Maroc, Mali, Mauritanie, etc. pour qu'ensemble, on part dans la même direction. Aujourd'hui, il nous reste que six mois pour faire le combat, car ensemble, on peut gagner, mais dans la division, on peut perdre. Vive PASTEF Vive PASTEF Vive Vive le PASTEF Vive, le président Ousmane Sonko. qui sale le dictateur. Vive les sympathisants. Vive les militants du PASTEF. jërë Djef jëf merci beaucoup madame la coordinatrice. je m'avais m'en vais m'introduire sur frère Abdoulaye Diédhiou moi am ay un merci beaucoup. alaikum, beaucoup patriotes Assalamu alaikum, beaucoup sénégalais euh, Assalamu alaikum, africains yi permettez-moi tout d'abord de revenir sur l'objectif de notre rencontre d'aujourd'hui ici à Brescia. La communauté sénégalaise a décidé de se rencontrer aujourd'hui ici à Brescia, à l'image de toute la communauté, les communautés sénégalaises dans la diaspora, pour juste dénoncer ce qui est en train de se passer dans notre pays. Le Sénégal est en train de vivre ses pires moments. J'ose même croire que même pendant la colonisation, on n'a jamais vécu une si mauvaise dictature. Le Sénégal est un pays de la teranga comme on a l'habitude de se glorifier. Mais malheureusement, mes chers frères, les Sénégalais se sont trompés en croyant qu'il fallait tout simplement faire partir le président Ablaï et juste mettre quiconque qui arriverait. Et malheureusement, celui qui était arrivé, c'était le président Macky Sall, qui aujourd'hui est en train de faire souffrir les Sénégalais comme s'ils n'étaient pas des êtres vivants. Vous n'aurez jamais cru qu'on allait tuer les Sénégalais en cette manière. Vous n'aurez jamais cru que cette jeunesse sénégalaise allait être, en tout cas, fusillée, pris, emprisonnée, parce que tout simplement qu'ils ont compris qu'ils ne sont pas en train de faire ce qu'ils devraient faire. Parce que tout simplement, cette jeunesse s'est éveillée. C'est très bien, a eu la chance d'être en Europe, d'étudier dans des universités européennes. Aujourd'hui, ils ont compris qu'il faut tout simplement se libérer de ces gens-là. Et malheureusement, nous avons un des chefs de l'État, un chef de l'État qui aujourd'hui continue à nous faire vivre cette néocolonialisme. Aujourd'hui, les Sénégalais demandent à ce qu'on libère le président Ousmane Sonko. Libérez Sonko Libérez Sonko Libérez Sonko Libérez Sonko Libérez Sonko Libérez Sonko Libérez Aujourd'hui, cette jeunesse continue à demander à la libération du président Ousmane Sonko, malgré toutes les campagnes de, de, de, diabolisation qui ont été faites contre ce dernier. Cette jeunesse continue à croire en lui parce qu'ils savent très bien que c'est l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Et le moment que nous sommes, c'est seul Ousmane Sonko qui pourra sauver le Sénégal. Aujourd'hui, je n'ai même pas cru qu'un opposant, en tout cas qu'un chef de l'État va penser dissoudre un parti qui est légalement, en tout cas constitué comme son parti. Les Sénégalais doivent en tout cas se réveiller, s'engager et continuer à lutter pour libérer le président Ousmane Sonko. Je suis sûr et certain que cette diaspora qui est là, si elle était au Sénégal, allait aujourd'hui se mobiliser et parmi les morts, on aurait certainement eu compté les, nôtres. Hélas. Parmi ces détenus, nous serions parmi, en tout cas, ces gens-là qui sont aujourd'hui en prison. Mais malheureusement, nous sommes là. Notre seule façon de dénoncer cette euh, dictature, c'est aujourd'hui de prendre, en tout cas, nos responsabilités, le dire devant tout le monde entier que nous ne sommes pas d'accord par rapport à ce qui est en train de faire. Donc, mes chers frères, il est temps que tous les Sénégalais le comprennent croyons davantage à ce projet. Ne jamais reculer. Nous sommes prêts à mourir, mais on ira jusqu'au bout. On va libérer le Sénégal. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Merci. Libérer! Libérer! Libérer! Libérer! Libérer! Libérez dégg leen mais gars yi gars yi gars yi ne ñëpp da ngeen demee neex parce que ñëpp suñu ñëwee fii daa am organisation quoi gars yi ngir yaa war a suuf yi ñu si bokkul lañ demee ne saay ok ba bene saay saay saay saay ba bene mais na ñëpp da demee ne ñu mu am organisation ngir yàlla rek da demee leen grand da demee leen ne ngir yàlla waaw mais mais fii waa bureau bi la ñu doon def fii ñëppay xeex ok waaw d'accord d'accord ba beene liste bi laay topp ñu ñëpp ñëpp mënu taxaw fii na ñëpp des des kii ne kee waa léegi sama gars yi maa ngi dem introduire responsable des femmes Seynabou Sakho moom ay paroles yu mu si yu mu si salaamaaleykum mbokk yi ñu leen di nuyu ñëpp di rafetlu taxawaay bi di wax ni lii mënul ñàkk parce que ñun ñëpp tey ji suñu xol tooy na Macky Sall yóbbu Macky mi ngi rey suñuy doom Macky Sall mi ngi rey suñu askan Macky Sall mi ngi tuur deretu sénégalais yi ci moment boobu mi ngi làq njabootam ci moment boobu ñi ngi taal Sénégal nit ñi lekkatuñu xiif xiif nañu te tey suñu taxawee fii tey jii ak mbooloo bi fi nekk yëpp ci jamono ju métti ji ak naaj bu tàng bi ak été bi nu mu tàngee kon xam ngeen li ñu indi fii du caaxaan xam ne suñu dëkk tey jii egg na foo xamante ni nii ñun sénégalais rek ñoo mën a taxaw ñoo mën a taxaw jàmmaarloo ak le sàll ñun ñoo ko mën a jàmmaarloo ak moom ndax Macky Sall askanu senegal buggatuñu ko. te Macky Sall nee na du dem Macky Sall ndaw Sénégal yi bëggatuñ ko te nee du dem Macky Sall mom ci bopam xam na ni Sénégalais yi bàyyiwuñu ko mu dem à la troisième candidature waaye nee le choix du peuple le président Ousmane Sonko du dem Macky Sall Sénégalais yëpp ak fit ak ay armam ak armem taxaw ni duma dem le le choix du peuple sénégalais muy le président Ousmane Sonko du dem té loolu duñ ko nangu Macky Sall jam nañu ci xol parce que dafa jël le président Ousmane Sonko emprisonné ko Macky Sall dafa jël 700 xale ci suñuy doom ñun jigéen ñi ñun ñu juróom 9 mois mu ci rey di ci rey di ci rey ba mat 53 xale mu wëlbatiku jël 700 xale yu ndaw ñi nga xamee dañuy def bac ñi di def BFM ñii di jàng mu dagg seen jàng tëj leen ci prison bi ni kenn du wax loolu dafay jeex Macky Sall bu ma neeree tout le peuple sénégalais jéggi ñëw ci diaspora bi ni ñëw. parce que duñ ko bàyyi mu taal Sénégal maa ngi leen di ñaan waa diaspora bi mobilisation bi baax na waaye la parti a besoin des fonds parce que fu xaalis amul dara du dem maa ngi ñaan le peuple sénégalais le peuple de la diaspora lamb leen seen poche bu kenn ku nekk génnee 5 euros kan combat bi day daanu parce que combat bi la laaj euh, xaalis la laaj xale yi gaañu nañu te xale yi waruñoo gën a gore xale yaa ngi ci hôpital yi dama bëgg ngeen déglul ba dama bëgg ngeen déglu ma ak xel déglu leen ma ak xel combat bi dafa soxla xaalis ñëw bi rek doyul lamb leen seen poche ngeen génne xaalis bi ñu financé combat bi combat bi jeex lamb leen seen poche yi loolu moo ëpp importance ci xeex bi ndax ñun Macky Sall ak fu ñu toll nii jamono ji ci Sénégal Macky Sall warutuñoo doy benn suba mais fond amul ci terrain bi dañ leen waxante dëgg ragaluñu li ñuy wax ragaluñu li ñuy wax waaw combat bi xaalis la laaj te ragaluñ li ñuy wax ñun waa diaspora ñooy financé Sénégal ba mu saf sap ndax Macky sàll mi ngi rey suñuy doom te xooluñu gëstuñu ñu Macky sàll xale bu dem hôpital kenn du la faj docteur bu la laal ñu indil ko problème ñu génn xale yi xale yi di dee ci mbedd mi loolu nañ leen ko bañ parce que ñun ñoo yebal xale yi nañ leen ko bañ parce que ñun ñoo yebal xale yi gars yi lamb leen seen poche yi gars yi lamb leen seen poche yi ñun ñooy financé ñun ñooy financé voilà ñun ñooy financé ñun ñoo ko war a financé <coughs> barke barkeelu leen gars yi lamb leen poche yi yi lamb leen poche yi ñu ragal nañu Macky Sall dañuy jàmmaarloo ak moom dañuy jàmmaarloo ak moom Tony boo bëggee Tony Antoine Diome boo bëggee nga ñëw jël sa xaalis bi ngi nii dinañ ko dajale te dinañ ko dugal senegal dinañ jàkkaarloog yow Macky Sall dictateur Macky Sall assassin Macky Sall assassin Macky Sall pyromane Macky Sall pyromane Macky doole si yi gars yi lu ko soxna seen bu saaxa waxee détenu politique yi ñun ñoo leen res seen añ seen reer seen ndékki suñu feebaree ñu ñoo leen di faj ñun ñoo leen di fayal bu leen di défendre pour ñu génn si prison yi donc Pastef le don de soi pour la patrie la nen lamb poos yi ñu jàppale suñu doomu réew ñun xeebi si loolu lañ ko mën a jàppee nekk ñu senegal pour xeex il faut ñu jàpp si combat bi ñu dara cinquante centésime yi un euro cinq cinq euro bañuñu dara na si ñëpp jàpp parce que suñu réew lañ ko defal suñu ay doom lañ ko defal suñu ay mag lañ ko defal vive Sénégal Macky Sall dictateur Macky Sall assassin Macky Sall dictateur ok léegi je m'en ma introduire suñu beneen frère patriote militant mu tudd moom mooy jëkkëru Assane Maguette Gueye ñu introduire suñu frère Maguette Gueye mu sànni si ay kàddu Maguette Gueye waxal ñu joxe xaalis non waaw ani Maguette Gueye nekku fi waaw waaw. asalaamaaleykum. Ah, soxna waaw ma fi représenter soxna umidien Diène waaw di wax ne xex bi mom xexu Sénégal la waaw xexu Sénégal la quoi na si ñëpp jot waaw fu mu toll nii Sénégal mo soxla ay doomam war a taxaw génn waaw Sénégal bu soxla nak ay doomam dañu wara taxaw génn xex waaw xexal sen rew parce que rew bi ñëw fi ay doomu italien ñoko xex ba xajal ñu fi ba ba ñu fi mën a ñëw am fi am fi suñu teraanga donc suñu suñu so suñu dëkk bu soxlaa dañu war a taxaw ñun dëggal suñu bopp waaw bu booy sénégalais yi di xatraay si si Sénégal di joxe seen seen bakkan kon ñun à l'extérieur dañu war a ñëw taxaw jàppale leen jàppale leen ci côté financement jàppale leen ci côté ñu dëggal seen bopp waaw dëggal seen bopp bi nag mooy waa Sénégal ñi nekk ci ñi nekk ci kër yi dañu war a génn fii waa diaspora bi ku nekk sa kër da war a wax say rak ak say mag ak say mbokk bu yi di génn dañu war a taxaw jàppale leen loolu mooy dëgg xeet bi du booy rek ñoo war a taxaw si mbedd bi génn di di defanteeg di defanteeg policiers yi ak gendarme yi ñëpp a war a génn jigéen xale mag ndaw parce que Sénégal moo soxla Ousmane Sonko. non boo koy xool sax da nga naan Ousmane Sonko li yëpp gisoon na ko saa Ousmane Sonko dafa gisoon lii boo déggee ab discours am naan Ousmane Sonko lii dafa ko gisoon moo tax mu ne woon mu mu mu prépare boppam donc lii mission la mais mission bi dafa war a nekk ñun dañ ko war a jàppale jusqu'au bout Ousmane Sonko léegi ultimo combat bi la nekk c'est-à-dire naan si mujjum combat la nekk l'ultimo gaara bu génnee ci lii rek pale dafay taxaw donc lii dañ ko si war a jàppale. xeex ba mu génn bu génnee rek doon président génn bi nag taxaw la laaj ak détermination dañu war a bloquer économie bi li gars yi def noonu dañu war a bloquer économie bi commerce bi dafa war a taxaw euh, transport bi muy muy muy oto yi ñëpp war a taxaw donc booy yi dañu laaj dañu war a dañu war a jàppale si moyen jàppale leen ci détermination pour nous aider les bi Wow. la continue merci beaucoup libérez jërëjëf jërëjëf jërëjëf jërëjëf sama gaay léegi ma ngi duggal suñu frère morsar mu sànni si tamit ay cadeau morsar da nga insister Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa Senegal, mbolom Sénégal yi tok fi ñoo ngi leen di nuyu Yaakar na ñun ñepp liñu fënd kenn ku ne dang ko yek ci sa xol bam tax nga ñew fi. lan moo xew mooy Sénégal ma ngay yàqu kan moo koy yàq Macky sàll ak gouvernement am moo fay jaay doole suba ak ngoon ci opposants yi nga xam ne ñooy opposé wu lan moo xew mooy dem na léegi ba jaaratul ci dëgg ci doole lay dox jàpp na président Ousmane Sonko ci lu duwul yoon lu jiitu loolu mësta jaar ak moom ci yoon mësta jaar ak sax kenn ci yoon doole rek ci lay dox mais ndax doole mooy doxal àddina ndax réew mi ñu taxaw doole moo ñu fi indi ay doomu aadama lañ duñu ay bayima ay loi mo wara dox sun digënté ñu respecté ko di ci dundu dundu gu wër bayima yi xamuñ luñ mom da ngay fekk bayima bu taxaw morom fekk muy lek mu ñew tuk parce que amuñuy loi way ñun yalla dafa def ci ñun ñu wara teud ci ay loi mo andil ñu ay loi yo xamne ci mom la joggé yi ñun ñokay xalaatal suñu ba def ciow li yépp moy Sénégal loi doxatu fa xamnañ ko président Ousmane Sonko citoyen la comme tous les citoyens de Sénégal posé candidat pour nek président de la république boobaak léegi amul jamm ben yon Ko and ak mom sax amo jamm bari na ñu ne fi ci ñun ku ci dem Sénégal di nga xalat fukk yor ak juroom ndax bo démé duñ la créer lutax moy mooy réew maa jaarul ci yoon ñak jaar ci yoon gi moy bo waxé rek wala nga jëf lu wuuteeg gouvernement bi ña ngi sa kaw boo ko xamee xamut lan mo xew nak moy président Ousmane Sonko ñun peuple Sénégal ñun citoyen ñun patriotes yi ñun ñi nga xam dañoo bëgg bëgg dëgg ñun ñi nga xam dëgg ñu taxajuk ñun la denk bopam waye ñun ñooñu ñoo jóg nak pour dénkaat ko réew mi am lu xew nak mu ngi ci biir kasso bi pour l'instant waye suñu détermination moko fay génné su fa génné ba ñew ci pale bi détermination am la réew mi jagee ñu góorgóorlu ci loolu lool nak ay wax mo ci jitu ay jëf bok ci ak do ma aadama mboolem cër yi mu yor da koy jëfëndiko pour am baax suñu làmmiñ yi suñu loxo yi ak suñu poche yëpp dañ koy indi pour Sénégal mëna né ci jamm ñun ñep xam nañ ne ñak jàmmi Sénégal tuba bi ñuy xol ni bu ñu xol rek xam ne fiñ ñu jamm neew fu bu fa jamm neewon duñ ñew ta kenn ku nekk ci ñun bi ngay jog bayyi nga sa mbokk mo xam ne boo amoon possibilité bi nga am ba ñew doo ko fa bayyi kon jamm amu fa du wër gi du faju gi du dara lo calculer ci Sénégal rek musiba ngi fa kon lolu mo waral suñu teewaay fi tay di encourager sama bop di encourager ñep ne buñu décourager buñu buñu ñu ben ñu yoon lu toll ni yoo taaka président Ousmane Sonko du dem euh, président de la République du ko nek fay dem ci ni wala ci na parce que amul ba legui ben sart bu ko meuna wa galway galwaay Macky Sall ci titangem la tollu rek motax muy def yi muy def nga xamne dafa xaaraan yo xamne ne mënoo sax comprendre kon ñoo ngi leen di sant ci taxaway bi di encourager ñep di wax ne nañ góorgóorlu nañ joxe nañ jëf nañ góorgóorlu ngeen mag président Ousmane Sonko nek président de la République inshallah libéré Sonko libéré Sonko libéré. jërëjëf mais gars yi ngir yàlla ñi ñu féetee boor bi duñ def nii ah ngir yàlla rek bili waxal gars yi ñu ñëwee nii mu fees ngir yàlla war a suul yi gars yi nii rek gars yi jàpp leen si ngir yàlla war a suul yi defee nii ñu ñëwee nii rek ngir yàlla war a suul na ñëpp demee nii piasa bu fees ngir yàlla patriote yi jàpp leen si rek na ñëpp demee nii rek jërëjëf jërëjëf les gars yi damay dem may introduire suñu beneen frère Kareka ku yàgg ci combat bi la mu sànni si tamit moom ay kàddoom. asalaamaaleykum mbokki Sénégal. e oro di cambiare l'Africa. abbiamo oro, zircon, fosfato, petrolio, abbiamo tutto, ma siamo sempre indietro. avevamo Nelson Mandela. Juan Kuruma, Steven Bicker, e ora Cheikh Job, e adesso Ousmane Sonko. Ragazzi, gli arabi hanno solo petrolio, noi solo gas, zircon, oro, fosfato e siamo sempre indietro. È ora di cambiare l'Africa. I nostri giovani muoiono nel mezzo mare. È ora di cambiare. È ora è tutto colpo della Francia, tenuto 14 paesi africani, loro moneta che fa per farsi tornare indietro, è ora di cambiare, con gagni senegalesi e senegalesi. jot nañu xeex xeex bi ba mu mat sëkk ku am ku mel Ousmane Sonko bu ñu c'est fini plus de 800 cent et quelques détenus ñaata nit la ñu Casamance ay nit lañ ci Sénégal la bokk ñu tëj ko teguñu ko fenn loolu yépp lu ko waral am ay délinquanté yu jiite Africa dafa jot ñu jëlee leen fa avenir bi xale yi ñoo ko yor kon bu ko defee xeex bi nañ ko continuer xeex libérer Ousmane Sonko libérer Ousmane Sonko Sonko Wassalam. merci beaucoup merci beaucoup Garega merci beaucoup léegi maa ngi dem introduire sama frère eh, Abbas mu sànni tamit ay kàddoom Abbas ñëwal. obrigado. salaamaaleykum li ñuy wax mooy ñu libérer président Ousmane Sonko li ma ci bëgg a mooy lenn rek lu bëriwul dama bëgg a wax ni patriote yi man personnellement tey bi ñu jàppee Ousmane Sonko la sama détermination commencé parce que ñun ñëpp ñooy ñàkk a wax ni patriote na état d'esprit la état d'esprit boobu léegi lañ ko war a wane Ousmane Sonko li mu waroon dugal ci suñu bopp yi dugal ne ko ba pare. même buñ ko exilé woon. amagul defet xam nga kañ lay am defet bu fekkee projet bi ñun ñi mu fu bàyyi ñuy réclamer ay patriote defuñu ba projet bi réussir li koy réussir loo nag mooy lenn. gouvernement bi ñom dañoo tit motax ñi ngi def lu ne di bloqué TikTok di japp ki ak yëpp parce que lan la Ousmane Sonko mën nga ko tej mais mëno ko dindi ci xolu sénégalais yi dugg na ci xol yi ba paré li ci dess nak ñun ñokoy indi li koy indi nak du ay saga du ay saga kilifa diiné wala saga di wala masamba du loolu du pro du di jall parce que loolu yok non la rek li am solo moy ñu mobiliser xalé yi ne ci biir bloqué économie bi ba mu ak Ousmane Sonko ñun projet bi day jàll te xam nañ ko parce que vent de changement bi am ci sous région bi du Sénégal rek la yem te ñëpp lay jàll lool nak il faut ñu dem ak intelligence xadar bi amna boy booy ci terrain bi di xex mais c'est à nous de les aider financer len dimbali len di waxtaan ak ñom di len conscientiser damay bañe a guddal parce que amna ñeneen patriote yu wara jàll ci combat bi mais lima len di wax rek moy affaire bi day réussir te buñ ko gëmé day réussir. amul lu ñuy dem di dolli ginnaaw ngi jaajëfal ñëpp jërëjëf. Bile Sonko naa la. Ousmane Sonko bi naa laa gaay après ñu yi s'il nag mën nañu dellu ginnaaw pour bañ a yàq mbir mi gaay yi dellu gaay yi dellu leen ginaaw tuuti rek gaay yi dellu leen ginnaaw s'il vous dellu leen ginnaaw dellu leen ginaaw dellu leen ginnaaw dellu ginnaaw gaay yi dellu leen ginnaaw eh dellu leen ginnaaw waay eh Mor Kante Kay Mor da nga am gan bu rëy ala yaba Amadou yaba Cissé merci beaucoup merci beaucoup patriote donc di jaajëfal encore mobilisation bo xamne mo ngi am au niveau de la diaspora gars yi la moment moment bi ñu toll mu nekk ben moment bu critique mais nekk tamit ben moment bu difficile di si profité di massaw tous les patriotes Oui, comme nous le savons, ça fait pratiquement 9 ans, 8 ans que nous Ce n'est pas le moment que nous, nous Ce n'est pas le moment que nous baissons les bras. nous sommes encore sur une résistance, sur une détermination. Le président Ousmane Sonko il a Il a tout dit, il a tout démontré. Il a tout responsabilité sur nous. Nous avons réaction avec les Japonais.

soo su ëllëgee ñu mën a bàyyee suñu ay doom benn Sénégal meilleur benn Sénégal libre benn Sénégal indépendant benn Sénégal souverain adduna nag ba adduna jeex amul fenn liberté fu ñu ko mayee liberté dañu koy foqandi dañu koy xeex dañu koy jëli suñu toogee nag di utiliser moo yoo xam ne nii bokk na si ñu tardel mooy njëriñ la fekkee loolu waxi olof la

dompat la il faut que ces jeunes ñu les moyens et j'assume toute forme de responsabilité et je may j'adresse directement à monsieur le procureur le ministre de l'intérieur Antoine Diome que nous assumons notre responsabilité que les dajale suñu ay les patriotes de nos frères et sœurs pour que maanaam ni mettre le Sénégal au chaos c'est parce que s'il faut dañu au chaos c'est parce que dañuy président Ousmane Soko, c'est le Sénégal président Ousmane Soko, c'est le futur pour nos euh, enfants président Ousmane Soko, c'est pour le Sénégal président Ousmane Soko, c'est pour que nous mën a liberté Ta liberté va dañ koy jusqu'au bout donc vive la démocratie vive la liberté et résistance résistance résistance je vous remercie leer na xeex bi c'est pas le moment de baisser les bras. waaw Ousmane Sonko def na lépp def lépp affaire bi léegi ñu ñoo si des gars yi xeex gën a gën a jàppoo xeex Sénégal libérer peuple bi léegi je m'en introduire suñu frère Mbida mu sànni ay kàddu Mbida. Mbida Mbida ñëwal. Eh, ex vice coordinateur. asalaamaaleykum sama gars yi maa ngi nuyu ñëpp di ziar ñëpp man nag damay commencer pour euh, wax ak italiens yi parce que Italie lañ nekk. ah bon volevo dire agli italiani che noi senegalesi particolarmente non volevamo venire qua ci ci siamo stati costretti siamo stati costretti a venire qua per fare l'immigrazione perché la Francia, dopo la, le, la colonizzazione, la Francia, dopo le false indipendenze, ci hanno messo alla testa del nostro paese dei governi fantocci, dei presidenti che fanno complotto, dei presidenti che ammazzano il loro popolo, dei presidenti che prendono le nostre risorse miniere e li danno alla Francia e all'America, lasciando morire tutto il popolo. E per quello i popoli africani prendono i gommoni, prendono le navi per venire qua a emigrare, perché loro seguono la pista che ha preso le nostre risorse miniere che dovevano servire per sviluppare il nostro paese. Quindi vi dico adesso, al momento che vi parlo, ma chissà il nostro presidente, sta ammassando il popolo, sta facendo un regime dittatoriale. Tutti i senegalesi si sono indignati. Adesso vogliamo parlare per la comunità internazionale, così tutti ci sentono. Tutti ci sentono che noi viviamo ogni giorno l'ingiustizia da parte del nostro presidente corrotto un presidente che lavora per la Francia, non lavora per il Senegal. Noi abbiamo uno che si chiama Usman Sonko, che viene per lavorare per il popolo. Ha detto a tutti i giovani di non andare più nel mare, a morire nel Mediterraneo, a rimanere in Senegal, a lavorare a, per fare sviluppare il nostro paese, così non ci serviranno più, cioè di andare in Italia o in Francia o in un'altra parte. Quindi vi dico a tutti, voi della società civile, l'avete capito e vi chiediamo anche il vostro sostegno. Voi dovete sostenerci perché tutti gli stranieri possono rientrare al loro paese. Però così, se lasciate che le cose continuano così, vi dico, l'Italia sarà ancora invasa di più. L'invasione sarà ancora continua. Per cui vi chiediamo tutti a parlare con i vostri, cioè quelli del, dello Stato, cioè a far regnare la giustizia in Africa, così tutti gli africani potranno tornare nella loro terra. Con Gai ma wax ci olof. Donc Gai ma ngi leen di wax ne leen gis ngeen combat bi. Combat bi dafa nekk combat boo xam ni dañ dañu wér ci combat bi ñun jeunesse bi dañ ci wér ndax ñi nga xam ne ñoon nañu yaakaaroon ni ñooy suñu ay kilifa te seen maam yi taxawoon xeexal suñu réew tey ñooñu ñooñu wan ginnaaw tey ñooñu ñoo tax Macky Sall am am fit bi muy am fit nii di ñu rey ñoom ñëpp ñu taxaw di ñu seetaan donc gars yi waratuñu am complexe ci kenn yàlla daf ñu jox xel ñuy xalaat yàlla su la joxee nit danaa la nit ki balaa nga koy gëm lépp lu muy wax da ngay gis ci moom li yàlla namm lépp lu muy jëf da gis ci moom li yàlla namm tey nag ñu ngi rey te ñoom ñu taxaw di ñu seetaan. kon gars yi vive Sonko libérez Sonko libérez Sonko Siamo qua, siamo stati qua a giugno, siamo qua e saremo sempre qua per difendere e diffondere la verità ed è cacciare per sempre la schiavitù dei francesi che esiste da sempre in Senegal e da tanti altri paesi dell'Africa l'unico leader dell'opposizione che è davvero in grado di dare per sempre una svolta decisiva al Senegal per il futuro del nostro paese è solo ed esclusivamente Usman Sonko. Ed è ora, per, per prendere esempio dai nostri vicini, fratelli maliani, Usman Sonko è la, è la nostra unica speranza. Macky Sall è un vero e proprio dittatore. Ci sono oltre 700 persone detenute la, ed è la loro unica colpa quello di non volere più un macabro e cri, criminale presidente che negli anni ha ridotto il Senegal in uno dei paesi più poveri del mondo, più quanto era già da prima, uccidendo le nostre piccole imprese e favorendo le grandi multinazionali francesi e sta uccidendo i nostri stessi cittadini senegalesi, utilizzando solo le forze dell'ordine, non solo le forze dell'ordine, ma reclutando anche dei veri e propri criminali che uccidono i manifestanti, gettando centinaia di corpi in mare. Ed è il mondo tace, il mondo tace di fronte ad un genocidio senza precedenti, perché diciamoci la verità, il Senegal, come tanti altri paesi africani, non hanno un vero e proprio presidente, alquanto prendiamo precisi comandamenti da questi maledetti vermi di francesi. Scusate le parole. La Francia è consapevole che se questo nostro grande leader, Usman Sonko, sale al potere, avrà i suoi giorni contati in Senegal. Verrà ripulito nella loro esistenza coloniale, siccome, siccome si sa che il Senegal vanta di grandi risorse naturali, come il petrolio, gas, zircon, l'uranio, eccetera. Noi siamo qua per lanciare appelli, messaggi di grande disperazione a tutto il mondo. Il Senegal è sempre stato riconosciuto come paese della teranga che significa fratellanza, ospitalità, integrazione e ne approfitto per ringraziare l'Italia che è il nostro secondo paese d'origine. E con questo dico libero Usman Sonko che ha dato la, la sua vita per il Senegal. Da quando è nella politica senegalese fino adesso lui ha subito tutte le torture che un leader africano non ha mai subito nell'esistenza della politica africana. E noi siamo qua per combattere tutti insieme, tutti, ma dico tutti, e lanciamo un messaggio di aiuto a tutto il resto del mondo. A tutto il resto del mondo. A, a, eh, eh, a tutto il resto, tutto non mi interrompo, eh, sono persone nel discorso. Comunque, ho scritto questo piccolo messaggio giusto per dare un quarto di quello che penso di questa storia qua, ma in testa avremo veramente tante altre cose da scrivere, ma è stato scritto veramente nel giro di mezz'ora, ma giusto un piccolo pensiero da tirare fuori avremo altre occasioni per tirare fuori altre grandi idee che noi giovani, nessuno si deve tirare indietro, ma assolutamente nessuno, dal più piccolo al più grande, perché se si dice la lotta ha il vero e proprio senso di essere lottato tutti insieme, l'unione fa la forza, la sovranità appartiene al popolo, bisogna proprio vivere nel vero senso della parola, non solo a parole. Diamo anche un messaggio ai nostri fratelli che sono in Senegal, sono in Senegal, Kilifodinei, footballori, musiciens yi ñëpp ñoo xam ne si seen kàddu yegg na ñun fu suñ kàddu yegg ñoom ñoo war a njëkk a jiitu si xeex bi nga xam ne si tey ji sama classe gi buñ buñ taxawee di wax buñ taxawee di wax xañ na ñi leen di déglu du bari bu ma tee mille personnes du ko weesu mais ñooñu nga xam ne buñ taxawoon di wax tey ji monde entier dañ leen déglu e len chiamo tipo Sadio Mané e Koulibaly perché se loro sono quello che sono è grazie anche a noi senegalesi che li vogliamo bene, li seguiamo ovunque, siamo fieri di loro e ne siamo orgogliosi di loro. Quindi in un certo senso loro so, devono essere i pilastri fondamentali di questa lotta, perché questa lotta qua è una cosa molto evidente che tutto il Senegal, l'unico modo per vincere è lottare tutti insieme uniti, dal, dal primo all'ultimo, soprattutto i VIP, quelli conosciuti in tutto il mondo, devono essere primi in questa lotta altrimenti noi così cittadini possiamo fare ben poco. La voce deve arrivare a tutto il resto del mondo. L'Ucraina avete visto, l'Ucraina, solidarietà da tutto il resto del mondo. Anche noi vogliamo questa solidarietà e questa solidarietà deve partire dalle persone più famose, i VIP, calciatori, musicisti, ma gente che comunque ha la parola che fa il giro del mondo nel giro di mezz'ora. Sapete già chi può... può con chi sto parlando. Ovviamente al momento non elenco dei nomi, ma comunque la lotta deve partire da loro. Da loro, grazie. Grazie tanto. Grazie Harim, grazie Harim. Diamo la parola al nostro fratello Marchino Mohamed che vuole parlare. Eh, scusate ragazzi, eh. ci sono... Io è stato coinvolto da un discorso che hanno sollevato certi fratelli senza dire i nominativi. Non stiamo ancora subendo il vecchio e il nuovo colonialismo. È ora di dire basta, è ora di... Eh, perché io una volta a questa strada bellissima facevo una manifestazione per i diritti degli immigrati, trascinavo dietro di me 20.000, 30.000 immigrati qua. Quando era la gru, vi ricordate? Io porto questo discorso a coloro che hanno preceduto me perché hanno detto che l'immigrazione è una nuova colonialismo. È vero, se la gente usufruisce della ricchezza della sua terra non ha bisogno di immigrare. anzi viene a emigrare, va turista e torna a casa dove sta bene, ma purtroppo Bravo grazie mille. Grazie mille Mohamed. Suñu société yëngatu na. Sonko bi naa la. lii lii rafet na torop li man lenn rek laa leen ñaan moo tax ma jël mooy booy dañoo soxla ndimbal ñun xeex bi comme mënuñoo nekk sur le terrain financièrement lañ leen mën a jàppale te combat bi ñun ñoo koy financé kon nañ ko wane 5 euros yi ñuy joxe 2 euros 5 euros 3 euros yi ñuy joxe bu ñoo ko xeeb la ñuy rey ñun kenn reyu kenn dee toog wax noppi bañ a wax def dara mais kan noppi nañoo bokk kenn ku ne na génne 5 euros 2 euros wàññul kenn dara fii lañ waxante dëgg merci beaucoup Kora ñi rawat na sama mbokk joolaay pour ñu xamné xex mi du xeex boolu benn nit la xex ñepp la wa kon ku palon ku jamaat bari safu njomori kan numbaraw muy pex kan numbaraw kola njomi kay senu ka juum kan sa ji juum sénégal fu juum fan sa fandan ji juum ñu foof piri patsef ul jobo kan fan fan parce que jiise yi sen mais projet patsef du projet ye casamance kesse du projet yetti Senegal, kese projet yetti afrique du burom kon ci junyum ka kan manje ja sénégal tout comme salo kon ka juma kan jummi tam gilambulum an fa nawla anom e le khalif elaj oufan nay nayitoy to mana sanken nayitoy to mana sanken makis manano ousmane sonko katane ousmane sonko politique du violence politique leka sof ana bonu kambe nor politique lebe ka sanke nor wan banyu ka sanke nor ka manje ka tinye kon kom ko fansu mbajo na onke onke mkana pulu jamata burum di jum tem manji jom manji jamarlo di anan manje anum ngol no fitne senegal anum am makisal kon ma ngi gërem ñep di gërem rawatina wa ziguinchor sen taxaway bi rafetna ñep gis nañ ko kon dafa doon lo xamanté ñun surtout la jeunesse la jeunesse africaine la jeunesse afrique la jeunesse sénégalaise dañoo war a roy ci ñoom surtout rawatina encore jamono yu toll nii jigéen ñi ñoom ñoo génn ci mbedd bi kon ñun surtout jigéenu Sénégal rawatina jigéenu Pastef war ngeen mun a roy ci jigéenu waa Casamance ñu ngi ci mbedd mi kenn lekkul kenn naanul kon ñun ñëpp rawatina diaspora bi war nañoo mun a taxaw comme taxawaay waa Ziguinchor taxawaay jigéen waa Casamance ak taxawaay waa Pastef yëpp asalaamaaleykum. de la diaspora italienne rawatina yéen waa Brescia comme ni ma koy faral di waxee. Euh, ñun ñëpp xam nañu ni euh, xew-xew saa bu amee euh, mu mu nekk xew-xew ci suñu réew diaspora italienne bu ñu koy wax Brescia moo tax ñuy wax ndax moom mooy capitale politique bu Italie kon tax na xam naa ni présenté wu ma sax man la Arouna Diouf responsable communication section PDS bu Brescia amna sama jël kàddu sax dina jaaxal ñu bari ne wa PDS ki lu muy def fii euh, dafa am benn injustice boo xam ni moom la ñuy subir ñun képp kuy doomu sénégalais nekk Sénégal wala mu nekk ci diaspora bi donc euh, moo xam man ma nekk PDS wala keneen nekk parti socialiste wala yéen ngeen nekk euh, parti Pastef problème bi nekkatul problème mu Pastef instant bi ñu toll nii problème mu injustice la ñuy wax te injustice defe naa 11 ans depuis 2012 ba léegi la ñu fal Macky Sall te injustice rek la nek di doxal ci biir rew deux poids deux mesures yi sëriñ si yàgg nañu ko wax ñun sénégalais yi yàgg ko wax sénégalais yi lambda yag yàgg nañu ko donc deux poids deux mesures Macky Sall biñ ko falé 2012 ba 2013 2014 2015 2016 le passé jot diggante bobu yëp injustice lay teg di jaay doolé nit ñu comprendre ñu won démb wala bok wa PDS comprendre nañu. mais Pastef bi mu juddee ba Ousmane Sonko dugg 2017 2018 mu dugg assemblée générale commencé di dénoncer li nga xam ni moom mooy mal gouvernance si la ñu gis ni kii daf leen di déranger képp ku nekkoon émissaire Macky Sall di ko yónni naan ko demal nga galgal Ousmane Sonko dama koy lim muy ay mbéri silla bi nga xam ni moo sonkoon Ousmane Sonko assemblée ñii Macky Sall yónni woon wala Marème Faye yëpp. c'est lima Macky Sall yoni won ñëpp pour ñu galgal Ousmane Sonko parce que dafa nekk di dox deug di wax deug ñëpp gis nañu ni Ousmane Sonko bi mu nekké assemblée di dénoncer da don déranger le gouvernement Macky Sall donc li muy dénoncer bu fekkonte ni amna lenn lu muy wax luddul deug ci digënté bi nit ñi dinañ ko sentir dinañ ko gis ba mën nañ ko mën nañ ko galgal wala ñu am luñ ko tuumaal waye dañu gis ni biñu démé 2019 manam biñu ko xexé ba mu génn assemblée. Mais nous ko xeexee ba mu génn assemblée 2019 dañu dem élection présidentielle man PDS la bokk xam naa ni élection yi dañ ko mais ci sama kàddu la yem mais résultat yi bi mu 2019 Ousmane Sonko dafa jël troisième position. fekkente ne li may wax dafay déranger mën naa leen bàyyi ak micro bi mbokk yi. salaamaaleykum mbokk yi. salaamaaleykum mbokk yi. Arona Diouf ñoo bokk dëkk. sénégalais la. gis na lu metti àndu ci.

li ma doon bëgg wax mooy 2019 dafa jël troisième position 2020 2021 ñu commencé ko xoxatal génne ko assemblée simbi mbalaanu kiiraayam ba 2021 ñu boole kak Mamour Diallo mu jël Adji Sarr fi muy maase woo mu ñëw ne ko danga nga violé xale bi procédure bi li ci xew yëpp jarul may guddal xam nañ ko bi ñu demee ba tribunal ñoom xam nañu ni Ousmane Sonko deful li ñuy wax ñun sénégalais yi xam nañu ko ci kaw loolu lan la ñuy wax ne ko toppeewuñu la viol donc koo toppewul viol mënuloo ko yóbbee dara donc élection yi six mois moo ci des ñu xam ni luñ ko dara ñu barricade ñu barricade buntu këram ñu bari ba ñu barricade buntu këram ginnaaw bi nga xamee ni saa bu waree jóg dem di wuy ji dañu koy booleeg ay alkaati ñu koy xoqatal mujj gi mu ne moom maire Ziguinchor la donc day dem Ziguinchor toog foofu liggéey liggéeyam bi mu demee ba gis ni affaire yi atte nañu te dara sottiwul mu ne damay ñibbisi bi mu jëlee yoon bi di ñibbisi yoonu suuf bi ñun ñëpp xam nañu li ci xew dañu ko coppati yóbbu ko biir këram bu fekkoon def na dara kon dañ koy yóbbu kaso donc li ma bëgg a wax mooy que ni combat bii combat wu système la man bokkuma Pastef mais xeexuma seen seen mënin parce que da ngeen nekk ci yoonu dëgg yoonu dëgg bi mooy que ni problème bi problème mu système la te système bi ñun jeunesse bi ñun ñoo ko mën a xeex système bi ñun jeunesse yi ñun ñoo ko mën a xeex donc bu ñu àndee mankoo bañ a dégg ñi nga xam ne ci système bi la ñu bokk nekk Sénégal naan yéenay financé waa Sénégal di yee na lool du dëgg dañuy bañ ngeen joxe xaalis wala ñuy xeex te xeex bi fii en Europe dañ ko war a continuer di xeex ba keroog Ousmane Sonko ñu koy libéré parce que il n'est pas encore condamné dañu ko jël def ko dañu ko jël teg ko ci biir kaso bi en attendant parce que bëgguñu mu dem élection condamné wuñu ko ba léegi bu leen jàpp ne dañ ko condamné li ñu defoon Karim de ko toogal ñu seet ndax da nga sañ pendant onze ans après ñu dem assemblée ñu ne dañuy éliminer CREI loolu ci toppale la bokk parce que dafa am parti politique yu lëkkaloo ak ma Macky Sall te loolu dafa bokk ci xeex bi. jërëjëf.